rafetlu àndin beek la meilleure chaîne di net amis chers internautes di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen kóolute safo ak seen choix renouvelé sur la chaîne des leaders muy doon mbégte ci janoog yéen saa su ne mais également ci di am ak moom jotaay pour la première fois muy seet si rédaction bi ku ñu dootul présenté si culture ku ñu dootul présenté si lii di théâtre ak choix bi nga xam ne aussi sénégal yi amoon nañ ko ci taxawaay bi mu amoon ici yàgg leen a bégal ci culture de son vrai nom Lamarana moom la ñu fi dalal tey Dom Lana ñu ngi lay nuyu ci sama tour gërëm aussi sa teewaay sur la chaîne des leaders mais également bi nga ñu accordé. Euh, merci beaucoup maa ngi leen di ziar yi ñëpp di leen nuyu. Mm-hmm. donc euh, comme ni ma ko baaxoo di def saa su ne. gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonant bi. Mm-hmm. Euh, may gërëm su may ñaari waajur di leen ñaanal yàlla fa ñu ne. ca barsàq ak jullit yañ fa fekk ñëpp ak ña fa fekk yal na leen yàlla yërëm xare leen àjjana ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waa seen Senbuzz dañu ma fekk la direction ba ci suuf di nuyu euh, les les téléspectateurs les internautes mm. hmm? ñi nga xam ne ñu ngi suivre saa su ne Senbuzz mm. les abonnés et tout. di nuyu Sénégalais yëpp nag. Hmm. waaw di leen nuyu di leen jaar. xam naa dina jaaxal ñu bëree bari bu ñu nee Lamarana Diallo nga baal ma rek donte ni ku ñu dootul présenté nga ma ngir mbokk yi xam Lamarana de son vrai nom Ibrahima Mbodj certainement ngir mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan la chaîne de leader. waaw man Ibrahima Mbodj laa tudd. Hmm. donc euh, mooy suma tur bu ma juddu. Hmm. ñu tuddee ma Ibrahima mbooj sama turon sama turandoo sama grand frère papa la woon. Mm. voilà donc euh, je suis natif de la région de Saint-Louis. super maa ngi dëkk euh, département bu Dagana. Mm-hmm. village bi ñuy wax Mbilor foofu laa cosaano. d'accord voilà. d'accord contrairement ak li ñu bari yaakaar certainement man dama jàppoon ni xëy na ay Fouta ak yooyu certainement mooy sa cosaan. Mm, waaw ki di Waalo Waalo moom c'est le Fouta ba jusqu'à Fouta. tout à voilà donc euh, mm. mais je ne suis pas alpulaar. d'accord wolof la super voilà alors ñu xamoon la ci culture rawatina personnage bi nga xam ni moom nga doon incarné ah doonte ni c'était pas évident moment boobu bu mu juumul ci culture boo xam ni xëy na culture Sénégal xamu ko woon moment boobu lan moo la may choix boobu bi nga doon def di toppandoo xëy na ñeneen ñoo xam ne duñ ay sénégalais de manière générale wala ñu bari découvrir leen woon jamono jooju. waaw xam nga du du loolu du woon sama choix du sama choix. Mm-hmm. ñun euh, chance bi ñu amoon ci aar mooy dañoo gimmi def théâtre populaire bu ñuy def théâtre populaire boobu temps mi ngi dox y avait les jotaayu xale yi bi daan am RTS donc kon ñu nekk am troupe dans le banlieue Grand Yoff ay Arafat ma gimmee foofu yaroo foofu dem ci troupe théâtrale quartier populaire yi def fa sama formation après ci laa dem Daaray Kocc bi ma demee Daaray Kocc personnage bi du maa ko créé Cheikh Tidiane Diop moo créé personnage yu Lamarana def ko ci ñaari pièces sénégalais yi bëgg ko. Mm. mu am bayre mm. sénégalais yi bëgg ko seen biir xool suñu borom moo ko def. Mm. mais du personnellement man maa créé personnage yu bi muy def jéegu yoor yor personnage bi ci Ibra italien lañ ko njëkk gisee. après nag ci personnage yu ci Ibra italien avec trois séquences. mais en plein nag ci jéegu yor-yor. Mm. lañ ko gën a gis ak jàng yi tas na. ci la personnage Lamarana. gën a fës gën a am ay séquences yu bari gën a bokk ci personnage principaux yi. Mm. voilà de passage maa ngi euh, ñaanal Cheikh Tidiane Diop yal na ko yàlla yërëm te xëy ñu ci barke yonent bi. alors mu mel ni bu la neexoon la aussi parce que gis nañu pratiquement lu bëree bëri euh, ci say sorties yi nga xam ne def nga ko wala réalisation yi nga xam ne gis nañ la ci personage boo doon dund la ak effort ak yëg-yëg lan moo waral yëg-yëg boobu da nga yaroo si famille boobu danga ci am ay mbokk wala exactement. non aw ma ci mbokk mais dama yaru ci biir pël. dama yaru seen biir xaar yàlla ki di xaar yàlla xam ne hmm. bari na ay la communauté guinéenne ba pare man Pël Fuuta moom a jàngal alxuraan d'accord voilà donc bi may jàng alxuraan Pël Fuuta moo ma jàngal ba pare euh, comme ni ma wax rek c'est-à-dire que hmm. ñun chance boobu bi ñu am mooy punkal yi ñu fi fekk Cheikh Tidiane Diop ñooñu donc dañ lay tàggat ci tàggat boo xam ne bu ñu la joxee personnage danga ciy nekk à l'aise hmm. da nga koy bëgg hmm. parce que nit balam pour dara réussir nga def ko mu réussir foog nga bëgg ko oh, oh, je veux animateur comme ça simplement hmm. j'aime pas l'animation mais doo dem je veux être un artiste comédien mais il faut ma bëgg ko bu ñu la joxee personnage danga koy gëm bëgg ko gëm ne da ciy réussir donc si si noonu lañ ñu tàggatee ñu yan revenu nga ci daan am moment boobu ak euh, communauté bi nga xam ne ñu ngi fi doon dund di ay Guinéens nga xam ni xëy na ñu bëree bëri dañ gis ni ñoom nga gënoon a représenté moment boobu nan lañ ko doon dundee ak sa relation ak moom. Hmm, normal ah, man sama relation ak ñoom macha allah y' a moom de hmm. benn problème parce que defuma dara luy bon ci ñoom. génnewuñu dara loo xam ne lu ñaaw la. Hmm. ci waxin bi ci gestin bi sur la culture guinéenne. amul lan luñ ci génne loo xam ne nit da koy gis xam ne lii baaxul et loolu man buñ ma ko doon def loo sax du ma ko def. super donc relation bu correcte laa am ak ñoom. mais ñu apprécier woon la aussi. il me respecte beaucoup. Okay. et il apprécie rôle Lamarana ak niñ ciy joué. sañ koy apprécier. Mhm. voilà. alors ngay kenn ci leader yi euh, teew fii sur la chaîne des boo ñu doon leeralal rek lu waral sa absence euh, Ibrahima Mbodj. si li du absence bi xam nga. parfois da ngay dem ba mu yàgg boo gëmee sa bopp nga gëm yàlla euh, da ngay gis ay détails da ngay reculer wu parce que benn instant pëccoxoo bi bari na affaire yi jaxasoo na euh, ci wàllu beneen bi wàllu beneen bi aussi on est en Afrique da ngay ree ba tax sama yoo xam ne kenn mënu ko wax bi ma demee ba sentir loolu dama recule d'accord parce que pëccoxoo bi bu duggee rek nga pëccoxoo soo moytu da ngay jël ndaare hmm. donc ma reculer gën a denc encore suma personnage parce que nag euh, euh, xar kanam hmm. wala personnage boo ko yoree mu late hmm. dana dem ba day soof moo tax ma gën a reculer nag denc ko. pëcc xoo fan nga ko gisoon. ci certainement ñuy def théâtre. partout hein producteurs yi nekk léegi. dañ naan théâtre. théâtre sur scène la mais téléfilm mooy yi ci télévision. fépp la amoon pëccaxoo riir mi tout ça la nouvelle génération ñëw mm. werante bi ñii ñëw suul ñii ñii ñëw mën ñii man je ne suis pas dans ça mm. donc boobu boo duggoon foofu il faut nga jéem a def nit ñaa ngi def mm. damay def je ne suis pas comme ça du du man formé wuñ ma noonu donc je prends j'avais pris le recul recul toog denc sama personnage mu nga xam ne nit ñi dañ koy namm booy ñëwaat nga ñëwaat ci beneen base parce que actuellement loo mënti wax technologie bi dafa avancé mm-hmm. am na ay xale yu dem jàngi technique xarañ ci lool mm-hmm. dellu si gere bagage yi donc yooyu yëpp da nga koy sóor ñaareel ba mm-hmm. ba ma jëlee recul aussi dama dem cinéma en même temps damay def régie régie cinéma d'accord j'ai fait trois grands films au Sénégal Super. en tant que régisseur benn bi plateau benn bi j'étais adjoint régisseur général donc ma ma ma yokki foofu aussi sama xam-xamu ci li ma ne. d'accord. voilà super voilà. Euh, ñu des ci sa absence ba léegi donte ni ñu ci bare bari bokk na ci rumeur yi nga xamee ni sénégalais yi ñu ngi ko doon dund moo di ne mystiquement Lamarana xëy na dafa am xeex boo xam ni certainement euh, amoon na ci ñi nga xam ni ñooy acteur yu mag yi fi nekk kenn daawul tudd cinéma te boole woo ci Lamarana. sa absence bokk na ci li ko war waraloon par rapport ak yenn rumeurs yi nga xam ne ñu ngi ko doon am moo dina da nga feebaroon dañ la jekku woon mystiquement ndax da ngay dëggal loolu ak yan jàngat nga am. non maa ngi sant yàlla parce que xam nga ñun sénégalais ñun kumpa moo ñuy rey. Mm. su ma la déggatul gisatuma la rek damay créer dafa feebaroon mu ngi tëdd. Mm. man maa ngi sant yàlla bu wér. feebar du ñàkk ci doomu aadama mais man suma feebaree du public bi laa koy wax wala duñ ko yëg. parce que yar nañ ma ci sutura mm-hmm. biñ ma bi ma demee daara ko ci biñ may tàggat di ma mm-hmm. formé dañ maa formé ci sutura mm-hmm. tey dara jaraluma ci àddina may feebar di ko siiwal non non non su borom mais feebar xëy na tolloon nga moment boo xam ne aussi xawoon nga jagadi non xam nga mystique moom on est des africains du ma wax lu ma wóorul mais mooy li ma la wax nit day day tëdd dele saa feebar am lu ko jot léeg-léeg saa mu jógaat mais du accuser ni dañ ma atteindre mystiquement du ma ko wax parce que su ma ko waxee maa ngi accuser hmm. te awma dara lu ma ci leer te ay nit ñoo may seetaan voilà donc euh, en tout cas daal euh, ma feebar ak feebaruma maa ngi sama ruqu jàpp sama ñàmbu daal. alors voilà. Euh, ngay leader gisoo ni culture soxla woon na la ba léegi par rapport ak téléfilm yi nga xam ni ñu ngi fi léegi production yi bari macha allah ak xëy na beneen doxalin boo xam ni par rapport ak yéen bi ngeen doon dox c'est vrai que xaw na am différence ndax yéen producteurs yi fi nekk dañ leen soxlawul da ngeen mënatul apporter lu bari ci lii de cinéma de manière générale wala lu waral ñu génnee leen ci li nga xam ne mooy production yi ak li ngeen jotee liggéey si xam nga. man moom du ma wax kenn jël ma je ne le dirai jamais au plus grand jamais te ku ñëw ci man it soxla ma fulla ak fayda mooy tax ma liggéey ak yow lu leer nga wax ma ma dégg ma wax la nga dégg xëy na nag am na ñu bari ñu ne dama compliqué ma ni leen su fekkee ni la ak fayda ak bëgg lu baax ak teral sama njaboot moo tax dama compliqué je serai compliqué jusque du sama àddina yëpp parce que ñoom c'est des producteurs hmm. dépense wuñ seen xaalis pour gagner zéro man damay liggéey ñoom dañuy liggéey su fekkee ne nag wax dëgg moo tax ñu ne dama compliqué damay compliqué ba ilaa yawmi diin sama xar kanam gi duma ko jox koo xam ne daf koy taxañ taxañee du ma ko jox ko duma ko dëpp ci kanamu koo xam ne il n'est pas professionnel dans le métier qu'on se dise la vérité moi je n'ai plus rien à au Sénégal je n'ai plus rien à prouver daw ma ci ginnaaw kenn ku soxla nag dinaa la jox cër jox la respect li ma war a laaj dinaa ko laaj ndax maa ngi ci métier bi te xam naa am na yu bari xam naa ko loolu nag la ñuy bañ et moi je vis comme ça. terewuma dund terewuma liggéey je travaille am na ay producteurs yu ma soxla set ma ñu ngi liggéey am na ñoo xam ne il veut travailler avec moi on en a discuté. Hmm. yàlla baax na. Hmm. waaw mais ku bañ dëgg parce que juboo. ku bañ dëgg juboo juboo. les questions que je pose c'est dans le travail l'internet YouTube tout le monde sait ce qui se passe dama dem gëstu ji mm. waaw tu signes un contrat avec un artiste comédien contrat bi ñu def ay affaire ci biir contrat du ñëpp ko maîtriser ah man soo ma joxee contrat damay dem avocat loolu la ñuy bañ mm. question yi yi may posé loolu la ñuy bañ mm. bëgguñu ko muus waaw nga jox ma contrat def produit mu jeex Sénégal nga duble voie yi def ko français jaay ko à plus mm. fay ma benn fay qui perd. mais est-ce que aussi loolu du xaw a du xaw a nekk erreur Ibrahima Mbodj bu fekkee ni gis nga ni pratiquement xëy na production yi par rapport ak ni ñuy liggéey foofu la jamono toll évidemment donc bu fekkee ni xëy na danga nga jàpp ni rek producteur bi li muy gagné certainement yow war nga gagné même chose est-ce que du doon erreur. pour nga xaw non waxuma gagné même chose. Mm. mais yàlla jamono fa toll. on est dans le professionnalisme nit da ngay bëgg doon professionnel wala nga pare gis nga bu ñu naxante les joueurs professionnels pourquoi ils sont riches pourquoi ils gagnent des 250 millions par mois mais ils ont un salaire brut mm. et le reste c'est les sponsors qui le complètent c'est ça qui les donne des salaires yu yu ngay dégg mais tey su ma toogee nga jox ma contrat mm. bind ci contrat bi ne le film je dois le vendre dans toutes les chaines internationales waa léegi tu me donnes cinq cent mille francs nga pare jaay ko A plus jaay ko sunu yëf jaay ko Netflix hmm. tu dep tu amasses des millions moi ne demande pas li nga de li nga am ma am ko mënul nekk sax d'accord mais nag hmm. y a le minimum ça se passe comme ça ñoom nag bëgguñu ko xam d'accord bëgguñu ko xam mais est-ce que aussi dina évident par rapport ak xëy na xale yi fi nekk gis nga léegi yéen li ngeen représenté euh, ci aar kenn dootu ko werante mais gis nga xale yi fi nekk léegi ak producteur de manière générale ni ñuy liggéey est-ce que dina yomb Sénégal ñoom aussi bu fekkee ni amul benn kuréel boo xam ne yéen samp ngeen ko au niveau de euh, ministère de la culture pour mu accompagner leen ba nga xam organisation bi am bi war a am ak euh, mesure d'accompagnement yi ñu war a def ngir jàppale production yi aussi jàppale artistes yi aussi est-ce que du loolu moo suñ ma jàppale ma jàppale sama bopp jeex na tàkk ma wuti xam-xam ma dem gëstu ji xam li may wax ma toog yàllaa fi nekk doomu adama nekk fi mm. doomu aadama bi lay dimbali yàllaa ko jox mu dimbali la mm. yàlla moo fi ne ah nañ ko gëm te noppalu man dama ko gëm dama gëm suñu borom nit yorul sama wërsëg xaaruma ministère de la culture def organisation li ma lay wax nii dama ko gëstu dugg ko gëstu ko te su ma leen ko waxee dañu xam ne réalité la mm. mooy li ma la wax bëgguñu ko producteur ñëw na ma seet si a travaillé li ma la wax nii lañu toog wax il a tout accepté ma signal ko contrat ñu liggéey il était honnête avec moi mooy doomi gaynde bii daw YouTube ah voilà mm-hmm. waaw donc léegi léegi da nga gis ni euh, Ibrahima Mbodj de son vrai nom moom la rédaction bi di am ak jotaay da gis ni euh, xëy na artistes yu mag yi aussi c'est vrai que waruñu bokk ak xale yi nga xam ne ñoom lañu ñu découvrir léegi pour ngeen liggéey forcément foog ñu jox leen seen gëdd bi ngeen yelloo mais aussi également du ngeen du ngeen yàq seen énergie comme ni ñu koy faral di waxee ci loo xam ni par rapport ak xale yi ñoo fa toll war nañu bokk liggéey y a pas de mm. mm. ko teg ci yoon man de ci yoon laay liggéey ak nit ku ma waxul yoon. Mm. di ma nëbb ay détails dama xam ne juboo ma dem sama yoon. Mm. dëgg na yàlla qu'on se dise la vérité seen chance la ñu fi ne y' a pas de mm. amul benn problème man lii laa wax ku ñëw seet si ma soxla ma ci du ma dugg ci n'importe quelle production bu ñàkk fayda. li may dugg dama koy xam de du début à la fin pas ma xam la production waxuma foofu loolu du sama yoon mais scénario bi ngay bi ñu lay jox. n artiste dañ la war a jox scénario. buñ la soxlaa nga xam histoire bi nu muy dérouler jusqu'à la fin lan nga ciy jouer hmm. c'est très important. surtout tey ki ma lay wax nii. Hmm. dafa ñëw toog sama kër. expliquez ma la scénario l'histoire du film hmm. jox ma si sama personnage ni ma est-ce que ça ma ne ko si ça m'intéresse l'histoire intéresse na ma am na sens ñu waxtaan nag après ci cadre professionnel le contrat qu'on doit signer comment ça va se passer man noonu laay liggéeyee. leer na ma jàngatee ci say kàddu aussi dafa mel ni da ngay xaw a bàyyi xel ni euh, par rapport ak euh, évolution bi nga xamee ni am na mais également production yi de manière générale aussi ak producteurs yi fi nekk xaw na manqué de professionnalisme bu ma juumul. loolu nga bëgg expliquer manqué na wax lii mu dem yoonam. de professionnel c'est-à-dire ci cadre liggéey des fois tu vois des choses yoo xam ne c'est pas professionnel. Hmm. yéen ñi nekk ci média bi da ngeen koy seetaan. ma ne man je ne fais rien de de de mal parfois si y a film qui est parfait dans le monde entier y a film qui est parfait mooy film de de l'islam de Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais y a film qui est parfait y toujours des mais nag y a le minimum yaa may dégg man du jox sama xar kanam n'importe qui parce que métier bi ma ne du ma rek doon jouer kat nu ma kese jouer kat. Hmm. un comédien boo xam ne da ngay taxaw ci ginnaaw caméra naa koy defal muy def ma damay gëstu ci réalisation ci de très bonnes images. Hmm. comment se passe la production li tax ma dem cinéma du du dew ma cinéma pour dem cinéma dama dem pour yokk sama xam-xam tey mën naa taxaw ci ginnaaw caméra def loola sur la mise en scène sur la direction artistique réalisation xëy na c'est trop dit ma ne damay réaliser mais maa ngi jàng. donc li may wax dama koy teg ci base yu leer. Mmh, mmh. super artiste nag boo xam ne comédien nga yow defoo loolu. Mmh. yow dañ lay def defloo rek je m'en sama yoon nekku ci. mais man sama bopp laa wax man. gisoo ni mën na am lu mu yàq wala lu mu xaw a ñagasal tuuti ci culture ak doxalinam wax nga ko yéen da ngeen doon am xëy na ñu leen encadré gannaaw bi nga xamee ni foofu ngeen théâtre jàngee ko ci école yi et euh, par rapport ak li xew léegi gis nga production yi ak euh, acteur actrice yi fi nekk de manière générale da ngay gis ni duñ ay nitu culture jamono moo toll foofu culture moo amatul certainement encadreur bi nga ni ñu ko waree encadrer de manière générale wala lan moo waral xëy na professionnalisme bi ñu doon nangu ci ay nit ñoo xam ni def nañu culture am ko gëstu ko mais également continuer di si jàng ba léegi par rapport ak production yi léegi fi mu toll. bëgg lu yomb kese la jeex na. ci ñaan producteurs yi wala. pour bañ a fay waaw parce que boo jëlee koo xam ne xamul dara bëgg siiw dëkk bi ñu bari di bëgg siiw. Hmm. am na ñoo xam dañ lay topp sax di la woon ni la dugal ma rek benn séquence bu ma fay dara. lijjantiwuma yooyu c'est leur problème cinéma moo grave problème bi du léegi demee la parce que image day dem te ñoo ngi ci monde bu grave avec la technologie quelqu'un ki a produit un film qui a votre image moo ko moom film bi pendant des années mën na dérouler mën na ci gagner lu kenn xamul YouTube bii les gens yi gagnent de l'argent mooy télé chaîne de télé yi mooy tudd tey képp kuy def production yaa ngi calculer les chaînes internationales pour après les vendre les produits mm. mais pourquoi ñoom bu ñu soxla artiste ñëw di ko seet si duñ ko wax la vérité san ne leur coûte rien du tout mais jaar ci ñun parce que daf am na ñu mel ni ñun arrangé wu leen moo tax les production tu vois yaa ko wax nee nga ma dafa am ñu ñëw dugg ci art bi defuñu formation nañ dem defi formation. du leen yàqal dara da leen di gën a yokk avancé loole leen voilà mm. donc mais man daal sama doxalin man moom laay doxal production bi ki koy def mooy producteur bi li ko intéressé mooy gagné xaalis est-ce que gisoo ni kon yéen leader yi nga xamee ni représenté ngeen lu bare bari ci jàngale mais également ci éducation ndaw ñi jotul ngeen jéem a xëy na mobiliser wu taxawal certainement benn kuréel boo xam ne di ngeen mën a gën a mën a avancer ci monde bi ak cinéma fi mu toll. ba nga xam ne xëy na ku leen joxul loxo aussi ngeen def seen. production ci kaw ñu jubbo am na Arcos Dakar am na Pikine am na am na kii mais moi je ne sens pas ñu bari loolu la wax aussi. parce que je ne le sens même pas man nekkuma ci sax ne le sens même pas parce que la face la façon dont ils ont déroulé le programme de d'Arco c'était pas ça Arco on devait l'organiser ba nga xam ne. du def ay répétition du dajale artistes yi muy tardé dafa waroon a may doole troupe yi fexe ba légal ba troupe bu nekk légal ñu adhéré foofu. Mm-hmm. ba pare moom muy jóge foofu di dem di régler le problème. des artistes au niveau de l'État. Mm. li nga wax nii ARCO loolu la waroon a def dem ba am label de production boo xam ne day am doole am ay financement di produire ay ay ay série di ko jox télévision yi artistes yi di ci gañe nag laa la wax de mais buñ toogee tuuti ni festival tàmba mm. dajale artistes yi yëpp ci oto yóbbu jël hôtel wala ay kër benn nekk cinquante wala dix artistes di fa tëdd benn instant ñun dañoo ñàkk fayda ñun artistes comédiens yi dafa am yoo xam ni man jaruluma ko. Mm. man personne ne m'appelle dans ces façons festival là qu'ils mm. disent. et festival ça ne se passe pas comme ça. Mm. nañ ñi dañoo dajale nit ñi pour reetaan kaf day lekk naan ñibbisi ku ñu wàccee si tali sax doo am paas boo ñibbee. moo je ne suis pas dans ces trucs là amuñu benn organisation buy wane ñu jox ñu respect tey suñ ma jiitalee man mbooloo su ma demee toog ak ministre bi sama problème laay wax du ma wax waxu mbooloo mi suñ yëkkatee un financement teg ko suñu loxo dañ koy séddoo ñun anam fan attends écoutez ARCO qu'est-ce qu'il a déroulé pour la culture au Sénégal moo représente les artistes comédiens mais attends toujours on a ces problèmes rien ne marche. ci sa gis-gis ARCO li mu waroon a représenté. wala représenté wu ko non. lu mu waroon a liggéey dëgg liggéeyu ko. Mm-hmm. ça fait dix ans qu'il faisait le festival de Kaolack da nga koo déggati.